ñu dem ti tijjil a def kadaaka comme noonu bokk na ci yi defar bakkaar isbaaxul wuddu lëwal njàpp mooy nga jàpp njàpp lu sell lu mat xuddi ak ak ak na nga faral di womat amaasil max dem lu baax a baax a baax la kadaa comme noonu xadaawu xaajatin zidi kadaa comme noonu zidi dolli ca bokk na ci baaxe mooy xadaawu xaajatin fay maanaam faj aajoy jullit bu ñëw daal di lay tawatal ay mbiram nga faj ko ngir yàlla loolu tam baax na de wa addu mawjil baxri ak eh, di lim duusi géej yi nga dem jàkkaarloo géej gi di eh, xool duusi géej yi di ci yéemu fikratan ci xalaat waaw nga toog di ci xalaat loolu xam nga lu yéeme la da yokk rek yegg ci yàlla dalay yokk ngam yàlla ak dëgër mu saxafatul ixwaan ak di saafoonteeg mbokk yi loolu tam am na solo de foo gisee jullit ñi nga saafoonteeg ñoom bu baax a baax xud muqtanisan nga aji koomlu boo ko defee day danga am loo jàpp de te da nga soppeeku itam bu baax yi la waxee boo ko jëfee jël ko nag boo ko jëlee da nga koomlu te ameeru shaxsin ak dundal gi nga xam nit kaa ngi dundal mooy jëmm ji ramadaanu weeru koor saw mu xoo koor ga mu dal di dundal weeru koor bu baax ci ay naafila ak jàngal quran ak sarax yooyu wa qaayimun fii muy aji naafila ci weeru koor xam nga baax na de yooyu yëpp bal day effacer jur mu xoo ay bàkkaaram waaw mm-hmm. dégg nga de xajjun ak xaj ngir yàlla wa umratun ak umra ngir yàlla wa sirru sadaqa ak sadax bu nëbb loolu yëpp min xilli maalin mu baye ko ci alal ju dagan waaw joo xam ne ni nga ko liggéeyee na nga ko faggo dagan na jaayoo sàngara jayo yamba dégg nga njaalu jihoo waaye danga ko maanaam wuutee wut mu lew a lew a lew a lew tilka sadaqa boobale sarax day bu baax a baax la baax ndax yàlla da koy fulandi ndax fi nga ko jëlee moo lew dégg nga de baax na de incha